kontaan naa sama xol sedd na parce que ku nekk lii ngay ñaan yàlla am góor gu baax mu bëgg la takk la yóbbu la këram parce que xam nga tey damay sëyi ci guddi gi bu leen dem nag ndax seetoo seet bi da ngeen war a jël dugalaale ko kon toog leen jël seetoo seet bi di kontaan ci yéen nag yéen ñëpp ndax presse yëpp samay xarit lañ waaye rawatina Medoune Diouf ak Paate dama yàgg ñoom te presse yépp samay xam yow mbay ni ma mel yow ak jaañ naar mi kenn du ko wax ñu ci bari kenn waxatu ko Rose la fleur c'est ma fille ñëpp presse bi fi ñëw ku ma limul rek damaa xamul sa tur mais dafa am ci ñoo xamante ne dañoo spécial ci man ku ci mel ni Paate mooy people 221 dafa tabax studio ba mu yegg jël sama photo def ko fa boobu xale laa siiwaguma moo tax bu ma ne internet yi dama leen di tere dañuy yàq xew mu ne ma bul tere kenn woowal ñëpp na ñëpp ñëw moom Médoune yëpp ñu rafetal ko te xam nga lii neexu waaye damay nangu parce que sama mbokk yi yëpp a ngi toog ngeen taxaw seen kanam di laaj lu leen saf waaye dama leen koy nangul parce que maa ngi yéen ñoo bokk nday ak baay Ablaay 221 ci suba ba tey mi may woo yéen ñëpp ñi fi ñëw aw ma seen fay parce que dëgg la bëgg ngeen liggéey mais déplacement bi dafa metti te fi ngeen jóge dafa sori fii laa mënoon a woote ndax sama ndey ju baax ji fii la wàccee liggéey duma ko defee àll damay ñëw fi sama yaay wàccee woon liggéey sama yaay yi muur ma fi ma sëyi may gërëm nag sama yaay yëpp ëttu kër Déthié Ndiaye Dieng kenn desul ñëpp ñëw nañ ëttu kër Ibra Mbour kenn desul gis ngeen ñii sama nit yi ni ñu toogee gis ngeen mun a création yaa amee ngi nii toog nday roqee daba njaay doomu kolle yaayam moo ma jox mbubb bii ma sol moo tax ma sol ko ma ne ko kolle boo ñëwee sa mbubb laay sol ñoom mbay Babacar mboor nee toog sama doomu bàjjen moo defar sama bopp su ma feebaree ci kaw lalam laay tamit ma di leen ñaanal bu baax ak fecckat yi wax ko sànq nga ñëw fi sa yaay wàcce liggéey ñu war la fi muure nga sëyi bi nga ñëwee absence am bëggoon nga mu fekkee ko ndax lii nga doon ñaan yàlla tey lan nga yëg. waa mbay man ku ma xam-xam ne auparavant daleewu woon nii waaye nit lu ko royul lu ko rayul rek tiital ko baa mu yokk ko jom dafa am lu rëy lu mu def ci man sama yaay demam ndax bu may sonn di góorgóorlu moom moo taxoon su ma sañoon lii mu fekke ko su ma solee toog am boroom kër su ma sañoon sama yaay fekke ko dëgg la je forte et tout mais elle me et merci beaucoup tout le monde. yaa xewi bul jooy bëgguñu nga jooy vraiment dañu bëgg rek ñu waxtaan ak uh, yow sénégalais yi dañu la bëgg dañu lay safo di la faale boo defee nii ñi muy naqari dina bari ndax ware ah ware ñëpp la mun a ñëpp ko safo mais tey comme ni nu ko waxee rek yaa ngi war a dem sa kër boroom kër ku nekk xam na artistes yi ak li ñuy teg seen kaw tey nag soññ la yab la ci boo àggee noo fa war a dekku bul jooy di yàq xew yow tam ah, da ngaa sañse bul jooy. waaw di ñaan rek sama yaay bi mu amee 13 la ko sam papa jël moo ko yóbbu Touba loolu laay ñaan. yàlla bàyyi ma sama borom kër ba mu yóbbu ma Touba maa ngi jaajëfal ñu na ba tuuru la sant la mu lay woo damaa nekk jigéen ñu nekk góor rek moo tax ma dàq waaye maa moom ñoo niroo teg teg sama papa je l'aime trop soutenu te nit ku baax ku bëgg njaboot ku mën a muñal njabootam muy góor gu baax yaruñu si tiit yaruñu si bëggee man lu may siiw siiw samay parents mosuñu ma laaj cinquante mille francs te pourtant damay joxe lu ko ëpp ci mbedd bi ñoom ñoom ma yoroon dañoo gore rek ndax noblesse bi nekk ci man ba àdduna di ko wax sama famille ñoo ko def ci maa ngi sant ñëpp tey sama xol neexul kontaan naa nag ah, tey ji man personnellement xaaroon naa bub su ñëw fii akolaat la dalal la euh, lu tax bub su gisuñ ko waaw Boubacar malheureusement dafa am dese goroom dafa gaañu en même temps nekku fi dafa dem Londres

lu nekk mun naa def na ko tuuti ñu xeex mais bu subaa nag mooy raw suba moom ku tardé HLM tardé nga lépp waa ndax sama borom kër tamit teral na ma ma di ko sant di ko gërëm moog waa këram waa kër Alaaji Paata Jaañ gépp maa ngi leen di gërëm di gërëm sama goro ajaratu ma Mbay maa ngi gërëm ñëpp suba daal incha mooy raw di gërëm presse bi kontaan naa ci yéen yàlla na seen borom merci waay jërëjëf kontaan ak moom Sénégal Ndiaye yëpp xam nañ ko sama mag la sama conseiller la sama xarit la mën naa ne bis bii bokk naa ci ñu mu ko njëkk a waxal mu bëgg ma nag ba àddina yëpp xam ko moo tax ñu ne suñu oto si yi rek woote jàmm ñoo ko. ñaar yéen a métier bi ah, mën naa ni sax peut-être ay concurrent ngeen naka ngay dundee ak moom si métier showbiz donte moom xaw ah, absenté si kaw seen bi. ñu ne ay concurrent ndax Fatou Fatou daf yar. muy dem nekk ci wetam kon kooku di sama ko sama maître la lu bari la ko def ci man sama référence la. mais nag gisee fekk day wàcc day fekk seen wàcc uteeg xale yi léegi dañuy créer buzz sur scène ngir nit ñi xam leen Fatou Waré tey ban témoignage nga def si moom ci métier bi. buzz baaxul Fatou Waré dafa doon fecckat boo xam ne daf fee nekk daf fee li muy def pire soo mënee li ngay def doo soxla buzz buzz moo lay wër. doo bëri bës bës moo lay wër koo koy faxatuwaat rek. léegi nag dañu laa dégg de. maa ngi fi man mii. fan yii xale yi ñu ngi lay bëgg a éliminé. laa ilaaha illallaah xale bu tuuti tuuti bi ngay waxal nii. xale bu tuuti tuuti bi ngay waxal nii. ay awa Banaya la ñuy dégg ay Ndeye Ndiaye Banaya lan moo tax ngeen jël fecc bi bàyyee ko koy Banaya da ngeen ay fecc kan ngeen. laay fecc bi bàyyiwuñu ko kenn fecc bi kenn moomu ko bàyyiwuñu ko kenn xanaa doo leen xool nag doo leen kataraak léegi ñoom ñëpp leen coow quoi ngay fay man do le ma dugal Mbaye ngay feccal yow si fecc si kat yi parce que man dana la gis si Momo Dieng yenn saa ma gis la nga beuf si kaw seenu Sidi Diop mais eh, man dama japp ni ku melni yow yow kat mag melni ni yow war nga meuna nek ci ginaaw ginnaaw benn ndaanaan di ko feccal waaw man ko xam xam ne maa ngi fekk maa ngi ci ginnaaw Taba Mbaye maa ngi ci ginnaaw Bas Sow yàlla moo ko def ne ma xam man ma ngi ci groupe bu Bas di ko ci groupe Tarba di ko mais ñeneen ñi soxla dama lay feccal Youssou Ndour ba ci suuf maa macha allah. alors tey bi ngeen nekk dafa xaw a rude la boo xam ne critique yi dafay bëri ku ci dugg di sëy rek dañ lay commencé di la yedd wala ñuy am lu ñuy taxé sa kaw tey jii lan ngay conseillé wala lan ngay yeddee ki nga xam ne wala nga koy yebee sa xarit Fatou Waré donte si métier bi la nekk tey mi ngi sëy comme yaa ngi si métier bi da ngay dégg lu bari donc tey lan nga ko doon conseillé. Fatou Wala man nu ma ko conseillé dama koy ñaanal parce que xam naa ki doon bu dee fulla mi ngi ci moom bu dee fayda mi moom ba mu mat sëkk moom bu ñuy wax sax yenn yenn yi moom dañ ko ciy génne donc du ma ko yedd dama koy ñaanal sëyam ba mu ci ay njaboot yu barkeel. après Fatou Wala nday yërib. ah waaw mën nañoo xaar lu ne de. kañ la nii kañ la loolu. kon fecckat yàlla na ginnaawam tàng rek ñu dem rek. te yàlla na ginnaawam tàng ñun ñëpp ñu dem rek. mais est-ce que doo doo lancer message waa ji ma leen ma ban waaj kenn newul. eh Kaja Diop dëgg la. lancer ko rek mi ngi lay seetaan. oui ma dama bëgg nga jóg yow. damay fecc jógal ma ne nga jóg kenn newul.